wàllaan bi kom njiiti réew mi Macky Sall fa dem xuti hab tubaab bu xam-xamam xam màcc ci wàllu yoon ngir mu wax ko ne mën ngaa def ñetteelu mandat su ko defee nag mu daal di forcé samp ndëndam bi turbine yéene kaay moo ñu ko xamal tubaab ba mu jël nag français la Guillaume Drago moom la jël romb fi juróom-ñaari attekat conseil constitutionnel bés bi yéene kaay mel ni ko naan ko la mu bëggoon a dégg moom la ko tubaab ba wax te mooy ne mën ngaa def ñetteelu mandat wala del na ko xode Cheikh Tidiane Gadio kenn ci wax ak njiit réew mi na ko far ak yow du tere ma wax liy dëgg gis nga mandat bi nga nekk mooy sa ñaareel te mooy mandat bu mujj jeex na de le mandat yi kaay na Cheikh Tidiane Gadio kay fa wax déedéet njiit réew mi na ko ànduma ci ñetteelu mandat ci 24 heures yi ne kaay mu na ko faa bëgg nga delloo sa xel yow njiit réew mi fa ngaa nar a dugg si histoire ndax li nga def ci réew mi ñëpp teg nañ ci seen bët ci lu baax kon ngir yàlla bu ko yàq ca vox populi Cheikh Tidiane Gadio na mi faa bëgg nga jaar ci bunt bu mag bi maanaam génn ci réew mi sénégalais yi di la tàccu moo gën nga mi ci xanam gu ñaaw te baax na dafaa bëgg nga bañ a déglu sa farandoor yi naan la laajal ñetteelu mandat mën naa ne yaa fi ne ñoom seen bopp rek lañ ne ak seen intérêt képp nag Abdoulaye Seydou Sow bu APR ne man noppi naa ngir joxe sama bakkan bi ngir jiite réew Macky Sall laaj ñetteelu mandat samp ndëndëm ma ngi ko waxee ci Vox Populi laa si yéene na ko Cheikh Tidiane Gadio de moo wax na ko ay dëggam moom jiite réew mi <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne wote 2024 yooyu boo moytuut fañ ko a a ah, yaaw seetal ca dialogue bañ nar a def ak njiite Sall fa teg condition charte ne Karim Wade kenn du ko baxal ndax sàccul xalalu réew mi fa ñoo bëgg ñu ko setal ko xam ne fañ koo tooñ te loolu njiitëram Macky Sall su leen ko nangulee mooy ne diggante fii ak wote yi munuñ fee àttee Karim Wade ba pare amal fi élection si juróom-ñetti weer ba tax ñu seen xam-xam màcc wàll wi ne ndëgg sërëx piège boo moytuwut 2024 yi fañ koy randal mu njaay siise ci biir yéene kaay bi na leen <laughs> ko li ma waxal man Idrissa Seck fay fen waxu dëgg Vox Populi ne Idrissa Seck dugg na rajaxe Ousmane Sonko dugg gu métti ah. nee na Sonko moom xam na na fay fen te li mu waxoon na fa feebar man de bi ñu waxtaan maak moom gisuma ko feebar ku nekk ci forme kay li ma waxal nag te du dëgg na ko wër na yàlla moom rëbb na képp ku dul wax dëgg ca direct news Idrissa Seck fa caa yokk ne Sonko bu taxutoo nag problème yi mu xam ni ci wàllug yoon ci wax lu du dëgg ak sosal nit ak ak viol goo xam ne mën naa nekk la ma muy waxtaan ak waa Walfadjri TV la mu wax jëm ci man moom Ousmane Sonko wóor na ko ne moom waxu dëgg fay fen te man xam naa ne fay fen te moom it xam na ne man xam naa ne fay fen waaye teru fa maa fenal Mamadou Lamine Massali ne man it faay jël son wàll ci fen gu métti gi Ousmane Sonko nekkee ma ko waxee ci la mandat yi nekkaay Thierno Bocoum ne man it faa bëgg ngeen may ma ma jël son wàll ci fen gi Sonko nekkee ndax li wax jëm si ñun ku jëgi ne fa ñu xëy dee te mënu fee def li fi yónent yi defut direct news na Idrissa Seck bokkum ak Victorine Ndeye fa rajaxe Ousmane Sonko tut ñu ko de ku mbuqi rek jox sa morom l'évidence yéen kaay ne Ousmane Sonko fa déstabilisé Idrissa Seck jaxase ko ba tax fi toll nii fa mer moom idi wal fa jër yéen kaay ne Sonko kay waxtaan wi ñu def ak waa Walf TV fa jur junney werante li kenn werante wut nag mooy beñe bi mu tudd keroog ci waxtaanam wa tax na fi toll a mel ni ku fañ ko seetaan moom kenn avocat am nag maître cré sur le der lii fa wax na njiitu ëtt attekaay ba fa jàpp ne ñi accusé muy Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye jaruñu ci jàpp kenn di dugal kaso ba yóbbu tribunal ba di xatte déedéet enquête yéene kaay ne Sonko daal fi mu toll fa jàkkaloog ay responsabilité ndax suba ci talaata ji lañ koy xatte li ñu seetlu nag mooy ne moom Ousmane Sonko noppi na ngir dem tribunal ba ñu àtte ko waaye fa teg ay charte le quotidien ko bokk na ca charte ya këram takk der ya ko wër ndombo naan ko xalaama ndir bàjjo na fa takk der ya dem tribunal nañ ko bàyyi rek mu génn seet yoon wu loolu nag mu bëgg état bi fa ñoo bañ ba tëdd ca naaj wa nee na duñ ko def te convocation pour wuy ji tribunal jot na ko keroog le 11 mai les si kaay na patriote ya ñoom ba léegi ñu ngay wéy di aar ak a garde kër Ousmane Sonko ca Ziguinchor a benn talib saw nee na man Dakar laa dëkk faa jógee faa bàyyi sama njaboot maanaam sama soxna faa bàyyi sama liggéey faa bàyyi sama njàng lépp ngir ñëw aar Ousmane sonk ndax jaral na ma ko l'observateur ne ñaari professeur ya ñu tuumaloon na fa ñoo dem ca seen classe ya génnee seen élèves yi ngir ñu ñaxtu ca lycée bu jululu yëf ya ndeke demewut noonu de Abdoulaye Diatta kenn ca professeur ya nee na man gàcce la may jël sama élève di leen génnee ci ay ñaxtu nee na loolu du dëgg yor yor yéen a kaay ne leen a meraloon singili leen bëgg a leen ay daan tuumal leen loo xam ne dara du ca dëgg lay dëgg te sunu làmb yéen a kaay yeggee ko mooy mbër yi ci làmb ji rawatina VIP yi léegi wax nañ fan lañ far de <laughs> ah, yaaw seetal ginnaaw bu leen njiitale Macky Sall dalalee ca pale ba Balla Gaye 2 nee na jàppale làmb ñu jàppale la kon kooku fay jàppale Macky Modou Lo nee na li xew fii si réew mi du démocratie dafa mel ni jàppalewut Macky moom ëmma seen ne ñii li ñu wax xam nga leerul man faay jaar ci digg bi ñun ñi ngi ci gannaaw njiit réew Macky Sall xanaa ay wax fay jeex lac 2 ne njiit réew ngi def liggéey bu am solo ci réew mi Gris Bordeaux ne ñun fa ñuy ñaan njéggal ci ñi nga xam ne fa leen a jàpp tëj kaso ci ay ñaxtu yi ñu bàyyi la génn lii yéen kaay na mbër ya kay la nekk ci ñoom wax nañ ko ñeme nañ ko Gris Bordeaux nee na njiit réew mi bu fekkee fa ñoo jàppale ñun tamit mënuñ koo ñàkk jàppale Balla Gaye 2 na ko ñun kenn ku nekk ca football kade mu may la fukki million seen entraîneur ba Serigne Saliou moom ñaar fukki million lañ ko may stade yéen ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy mbir mu yéeme te garaaw a yow seetal benn waay daal fa xam jabar waaye waa ji fa fiira fiira fiira fiira fiir bay bëgg a dee jabar ji kenn du ko jege kenn du ko xool kenn du ko sax nuyu léegi nag mu njortu ne jabaram ji fay njaaloo léegi mu jàpp jabar ji di ko xas di ko waar di dal ci kawam jabar ja ndeysaan kàddu yi ko jëkkër ji wax naqari ko lim ko fut ko métti ko xam nga nu mu defam fa daal di xaru ray boppam faatu ñakk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca guddiri hmm, waa ma ne fa ngaa juum de waroo woon a xaru ndax fa ngay perte dis perte la sec perte sa njaboot ak sa bakkan nga yegg ca yàlla mu ne faa la xaru looy wax fa ngaa waroon a ñaan baat dem sa yëg keneen yow jëkkër ji tamit waxuma la sax ay njortu ci tuumal nit lu xamul waaye bu la wóoroon ne fay njaalo fase ko nga seeti keneen rek yi fi jeex